gazière te amul pétrole ñu ne Sénégal am na pétrole te fu ñëw mun a am lu ëpp loolu kon message d'espoir lañ leen andil gis nga réew jub ak sa loxo yu set ñoo koy liggéey li ci nag la ci des incha allah te xam naa ni dimanche gërë-gërë dina génn jubilé. vice président Diomaye Faye jël nañ nag bokk na ci li koy yombal ñaar ba ñett la bu ci njëkk mooy dem leen jëli carte électeur yi ngir yàlla. ngir yàlla su amee fii ku fi nekk te jëlagul carte électeur da ko jëli. su dee ñu fi nekk ñëpp jël nañu nañu dugg ci dëkk dem seet ñi nga xam ne jëlaguñu rawatina daw ñi nag ñu wax ak ñoom ñu leen jëli seen carte waaye jël sa carte demoo ko te amul ko kon li ma bëgg jeunesse de Vélingara dimanche sept heures du matin sept heures la woon dama bëgg à six heures du matin pour bu am fii ci Sénégal ku fa dem fekk fa jeunes yi fees fa dell dell dell dell parce suñuy yaay ak suñuy bàyyi man xam naa ni dinañu teel a te xam naa ni ëpp si ñoom ñun la ñuy woteel waaye léeg-léeg li ñu seetlu mooy taux d'abstention bi mooy ñu ñàkk a voté jeunes yi ñoo ci ëpp mais jeunes yi ñoom la seen avenir nekk en mag ñi ñoom weesu nañ loolu kon dama bëgg à nekk fa jeune yi sa del parce que élection bi dootul amal bu ñu sàgganee ba mi ah damay ragal ni que parce que li ñu at yii li ñu suñu dund yëpp ñu jël ko teg ko au service de Sénégalais dafa war a am lu mu ànd ak nag mbir mi. il faut askan wi wane tam taxawaayam ci biir ni moom bëgg na coppeeku moom bëgg na changement moom bëgg na lu baax te loolu ñu ngi koy matérialiser ci choix bi ñu def ba tax nag dem voté jëli carte yi d'abord dem voté ensuite waaye ñetteel bi comme xam nañu seen i pexe ay mbuxumkat lañu mooy yéen jeunes yi na ngeen organiser des tours bu nekk kenn ku ne xam ne ku dëkk ci bi. xam nga fii soriwul frontière élection bi jotee dañuy importer ji ay nit yu dëkk ci beneen dëkk beneen réew dina def sa frontière pour ñëw voté dama ne ku dul gaa Vélingara du voté Vélingara loolu principe la war a doon ku dul waa ci bureau de vote yi organiser des tours de garde ñii ñëw matin ñi ba ñu paree voté ba tëj bureau de vote yi. ba compté ba mandataire Bassirou Diomaye Faye génn ne sama PV ngi nii am nañu quatre-vingt pour cent à Vélingara bu boobaa nag lu ngeen doon nappalu ji kon yaa créé de la mi ngi seen loxo li ci des nag cinq jours des moo dal bi ñu simple dem leen ci kër yi teg ma suñuy yaay ak suñuy baay waxtaan ak ñoom sensibiliser moo tax Vélingara président Bassirou Diomaye nee na il compte sur vous est-ce jox ngeen ko seen kàddu est-ce que jox ngeen a wax nag est que bi ñu duggee ci politique bi léegi 10 ans la 2017 laa njëkk a ñëw Vélingara fii élection législative ñi ma woon sax dugg ci dëkk bi fële la ñu yem ci ci bi est-ce que bi ñu commencé politique ak léegi. mës nañ leen décevoir ñun est-ce am ngeen yaakaar ci ñun li ñu di ñaan rek mooy seen wàllu ci contrat bi def leen ko seen wàllu ci contrat bi mooy dimanche ngeen dem voté massivement pour Bassirou Diomaye Faye. parce que ngeen defee loolu ba pare di xam ne ay góor ngeen ko sekkal de wallaahi ce pays va changer sàkk dina jóge ci réew mi rembal alal réew mi dina fi jóge. jël intérêt réew mi tey la ko waa bitim réew nañ fi jóge bu ko defee nag ñu téye suñu richesse nationale ñëpp am ci seen wàll ku ñeme ñàkk rek di nga gis wàll ci réew lii mooy le projet bi ñu porté muy à la base projet PASTEF tey muy projet large coalition boo xam ne c'est la plus grande coalition du Sénégal kon waa Vélingara ñu ngi leen di gërëm leen sant ci teertu bi kontaan nañu lool waaye yoon bi dafa gudd mënuma daaneel monument daaneel waaw yéen leen ma rek sama gars yi yéen xam ngeen samay xarit ngeen maa leen bëggal sama bopp. suñu waxtaanee rek dinañ déggoo suñu waxtaanee rek dinañ déggoo saa yu ma ñëwee dara dinaa dugg. wër ba ci marché bi ba ci terrain ba def suñu meeting amuñu chance ñu mën faa suñu tànk. kon suñ ñëwee ba fii yéen xam ngeen ni campagne bi 15 jours kese la man ak président Bassirou Diomaye Faye ñàkk nañu 5 jours ci campagne bi mu des nañu 10 jours boobu ba ñu ngi dans le sud du pays war nañoo dem dans le nord du pays war nañoo dem dans le centre du pays te 5 jours moo ñu dese déglu ma rek ñun gagné la ñu bëgg su ma jugee fii Tamba la ñu jëm suñu paree Tamba ñii fanaa ni Kédougou xam ngeen ne fii ak 5 heures du matin ñu ngi daw kon suñ ñëwee ba fii am na tool ni ci mbooloo ñu délivré. suñu message yëgal nañ ko ci dëkk bi bu ngi ñu ñu génn continuer liggéey bi loolu dañuy ñaan ay patriote ci réew mi politique ñëw ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan ngeen gunge ñu rek ñu continuer teg la ñuy Tamba asalaamaaleykum wa rahmatulah. mënuma nag mënuma ñëw ba Vélingara ngara mënuma ñëw ba Vélingara ngara te du ma nuyu xam ne ñooy kilifa diine leen di nuyu di di leen delloo seen wàccuwaay di leen ñaan wér yaram di leen ñaanal wér gu yaram di leen ñaanal guddi fan. waaye di tàllal suñu loxo yi di sàkku ñaan ci ñoom asalaamaaleykum